wasalaatu wasalaamu ala ashraf al ambiyaai wal mursalin wa mawlana muhammadin al wa ala alihi wa saxaabatihi wa man tabiahum bi din mbokk yi asalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ci jataay bii di leen ci bés bu màgg bi nuy waajal muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di ñaan sunu borom mu yegg leen ci jàmm te jëpp ci jëf juñ ci jëf mu nangul na ko làqal na ko fu yàq yëgul bayit bi may ubbee nag muy yaa xaaidan lii duna kasbin wa safar muxjila kasbin wa silaahin fii safar salli salaatan bi salaamin suyiat wa barakaatin naamiyaatin rufiat ala nabiyillaahi bahjati rijaal wa ziinati nisaai man mahal majal sayidina muhammad wal aali wa sahbihi fi lxaali wal maali mel ni sëriñ bi bayit woow yi daf ci wax ak boroom di ko wax ni ko yow mi ma may ci lu dul may jóg di fàggu ci mbaa may tukki nga may ma lu gàcceel ak fàggu gàcceel ay ngànnaay te bu mel ni nit li tax mu daan am li mu daan am lu ci ëpp ñaar benn mu jóg di tukki tukki commerce mbaa mu yor ay ngànnaay xeex ba gañe doo nga mën a am alal ak pouvoir alal ak pouvoir moom nag mun yàlla may nga ma alal ak pouvoir ci weeru safar bi ci lu may jóg di tukki ci lu dul may jóge di suuf di wut ay ngànnaay li nit daan xam ne nit ñëpp loolu daanaka xeex yi mos am ñëpp loolu ko muy alal ak pouvoir li ko daan may mooy nga jóg di fàggu ci wàllu commerce wala nga yor ay ngànnaay di xeex mun nag yàlla wommatal na ma ñaar yooyu ci lu dul may fàggu ji ci lu dul yor ay ngànnaay di xeex loolu mooy yaaqaa idan lii duna kas bin wa safar moo ko jëla kas bin wa silaay ci safar kon loolu ci wàllu bopp la jëm mu delluwaat it wane fi mu féete nit ñi ak li mu yéene ci ñoom ak li mu jàpp ci ñoom ñaan suñu borom ci biir tukki bi ne diikun bikun sarmadan wajaal masiriya da jawfal faralil wara mislal maharin muy ñaan suñu borom ni ko nag ma defal ci daraje baati kun abadan sama tukki bii na ko def mu mel ni jawfal fara ci mbir jawfal fara bu ñu ko waxee dafa am ci jamono yu jëkkee ñett ñu àndul di rab bi kii jàpp ak lëg kii jàpp ak kéwél kee jàpp ak mbaam àll bañ ñëwee nag mun leen ñoom ñëpp ñu bëgg a ndam ci leen kullu saydi fii jëw li ngeen rëbb lépp mu ngi ci biir sama mbaam ndax mooy maa mu mel ni kon dafa jubloo ñaan rek saabu bu tukki ñëwee na doon lu mel ni jaww mooy na doon lu ëmb lépp ci mbindeef yi ñeel ñeel mbindeef yëpp kon bi def yëpp la ko ñaan yemalewu ko ci ab taalibeem yemalewu ko sax ci jullit yi waaye lil wara al wara bu ñu ko waxee mooy mboolem doomu kon foofu la xolam nekk ci digganteem ak nit ñi waaye nag umpale it nit ak umpalem mën na koo jóo ci mu fekk njariñam mu di ko bañ loolu de moo tax sëriñ bi bu ñu ko masaan wax waa barab sàng bi ñu laa bañ daan ndax ma dañ maa xamut ndax nit du bañ njariñul bopp waaye umpale mën na koo jóo ci mu doxee ak loola doxee lu doxee nu bañal waaye xam ma dañ maa xamut kon nit ak umpale mën na koo jóo ci mu bañ loo xam ne njariñul bopp képp la ndax su borom dañu ma foo lexa insaan daifan doomu dama ko bind mu doon ko néew doole néew doole doomu aadama day feeñ ci xel xelum doomu aadama ba li war a xam du ko xam day feeñ ci xolub boppam ba na muy bëggee ak muy bañee sax du tegu ci aw ci yaramu boppam ba at mi loo ko teg at ay jamono ay jamono dafa am ñaar ñu doon warante ci lañ doon xëccoo kat du dara ay yaa lekk ndogu lekk lu tax nga lekk ko yaa ma fa jiitu bañ xeex ci bañ xeexee kenn ki jóg ni ko xaar ma fi léegi mu ñëw rey la diir bi mu ko ko waxee mu mu mu mu mu cëpp cëpp naan rey xanaa dangaa xam lii rey man ma war a dund téeméer ak yow rek diir bu gàtt waaje dem sol ab kilo ñëw jël ab paaka bi mu soggoo moom diir bu gàtt la ko jam mu tëdd benn cër yëngatu ko pour wan leen ne doomu aadama dafa néew doole ci lépp dafa néew doole ci xelam néew doole ci yaramu boppam néew doole ci xol xolu doomu aadama néew doole gi ñoom siy feeñ mooy ba ci buy bëgg mën naa bëgg bëggee koo xam ne day mel ni mbëggeelu weñ weñ ni weñ di bëggee mbaa lëpp yi dina am nga xam ne boo taal làmp rek ñu ñëw doll ni ci lépp rek daal daal dem leer sëñ Modou Gallo Guèye daan wax ne man bëggeelu weñ du ma ci dara bëgg mbir ba ne ca lépp ñu sappi la sànni di wax ni weñ de ba muy bëgg soow bi di ca taab di ca taab bi ñu di ko sappi sànni jubluwutoon loru dafa jubluwoon a jariñ waaye dafa xamu nuy jariñ moo tax bu ñëw rek taab ci ak loolu ñu sappi mu ne nag bëgg lu bañ du fekk dara loolu ma ñu wax ne nag doomu aadama tey dafa néew doole ci xolam ba ci buy bëgg ko bañ sax du ko teg ci aw yoon ñaar na ko bëgg bëgg lu bañ mbaa bëgg lu lépp àll bi ràññee doom am solo ci nit buñ ne sëriñ rek ñu ne sëriñ ab sëriñ ñëw fekk sëriñu tariyaax boo xamante ni la muy liggéey lépp mooy jël nangam bind xaatim def nangam nangam am nag ñu ne kooku ab sëriñ ñu fekk njabarkat bi samp ay bital ak i xaab ñu ne ab sëriñ nan la ñuy xam mënoo ko ndax foog ñu jëm xam ne sëriñ kan mooy sëriñ Tuubaa ñu di ko woowee sëriñ foog ñu xam ne sëriñu tariyaa ba ñu woowee ko sëriñ Moodu foog ñu xam ne njabarkat bi waaye Sénégal fi mu ba ci bu demoon ci am njabarkat sax day wax demoon ci am sëriñ lu tax ñu woowee njabarkat bi sëriñ jëm sëriñ Tuubaa ñu woowee ko sëriñ loolu lépp mën di bàyyi xel di ko xam nga xam ne lan la mu mel ni jafe-jafe bi sax nekkul ci ràññee diggante njabarkat bi samp ay biteel ak i xaawam ak sëriñ bi waaye li jafe xàmme nag mooy sëriñu triax bi ak jëmm sëriñ sëriñu tasawuf sëriñu triax bi da nga ko gis mu sëgg di julli julli yu bari da nga ko gis muy woor woor yu bari da ko gis muy sikar sikar yu bari waaye kan lay jàmm jàmmul yàlla boppam lay jàmm bakkanam ko bakkanam lay jàmm parce que dafa am projet yu muy laqati bu laqati ko baax na bu laqati ko mu génn kon kooku mel na ni koy jàmm yàlla muy jàmm bakkan lay jàmm loolu daa mat xam ne kiy jaamu yàlla ak kiy jaamu bakkan kon jafe-jafe bi foofu yi la nekk moom la sëñ bi di misaal ci masaalikul jinaan misaal na ci ba ni danga gis muy kaalaw di nuru nurulu te shabuhan bi ru'asa saalihin di nuru nurulu nit ñu baax ña nga xamante ni man hammahum ridal ridal jalili kullahi ña nga xam ne dara dara ñuru leen lu dul ngërëmul yàlla waaye ñoom noonu danañ ko def te fekk ñoom ay fiir la yoo xam ne àddina la jublu rab moo tax mu ne xat baana is baana jaxara annama suyooxu hada zamani julluhum fa xoox daal ne leer na ne sëriñi jamono ji ñu ci am ay fiir la ay fiir fiir àdduna kon nag di xàmmee lu si am solo la tey yàlla mooy doxe moom yàlla mooy def ñaar bu jógee jëm ci moom loo bëgg rek mu jàppale la ci fa ama man ata wattaqa wa saddaqa bil husna bi nga jógee di defar te yàlla képp tax yàlla dafa ne fasanuyassiruhu lil yusra dana la jàpp da lay ubbi butu yàlla dafay jox nit ki liberté da lay jox am xel ba noppi ne bàyyi la si liberté ne yoon bu baax waaye yoon bu baax bu baax ne waaye yoon woo ci jaar ne mu xàll waaw mooy loolu mooy fa ama man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra waaye nag wa ama man baxila wa salla ki xam daa jubloo jaar ci aw yoonu dëgg képp wa kasa bi nas fa sanu yassiruhu lil usra mooy mooy mooy dalaa joxum xel libre la wet koo jëm nag mu ubbi la ne la ci jàll ngi yoo xam ne lu ci jóg rek la ca des day jóg ànd ak moom niroog moom bay benn ak moom te dool ba dool mën a xàmme muy Pastef ak plan kii Pastef ak plan dafa jóg di jàmm yàlla ngir jëm yàlla kee day plan fanaan mooy li muy def lu mu wér rek ay projet lay laax ci ba ngi xëy di xool ba xam lan mu wax ne waaye dañoo bokkul fu ñu jëm nag yow doo leen xam ne waaye ñoo bokkul fi fu ñuy taxawee ndax borom pësteef bi bu amee li mu doon wut day jàll day wéy bu ko amut day wéy ki doon plan bu amut li mu wut day bu ko amee day bàyyi bu ko amut day bàyyi yonte bi ne man kaana hammuhu hammuhu al-aaxira koo xam ne nag sa itti ëllëg jamaha allahu samlahu wa jaxala xinaahu fi qalbihi wa atathu dunya wa xayraati koo xam daal bi nga jógee di jóg sa itte jëpp ëllëg la yàlla dana dajale lépp yomb yombalal la defit nga doylu mu def ko ci sa xol te àdduna yi dana fas wuy si àdduna boo wéralee si diggante sa borom àdduna doo doon moroom moo tax suñu dana wax ne àdduna ak jigéen ak ub takk ndeer ñoo loo ci dàq doo ko dab loo ci wan ginnaaw doo ko rab waaye loolu la yonte bi wax ne man kaana hammuhu al-aaxira jamaha allahu samlahu wa jaxala fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya aaxira nee saa boo jógee jëm ci yàlla yàlla day def sa sa doylu bu nekk ci sa xol xam ne da ngay doylu adduna yi day ko dunya bu mu ngi jóg adduna képp la ñor farrax allahu amra yàlla def ko fii lii mu def ko fu ne sa xel nekk fa wajaxala faqrahu bayna aynayhi sa ñàkk it sa kanam la ko foo toll di jaax ka tin wala mu yaatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu tey du tax nga am ci adduna lu dul yàlla bindu adduna jox ko si lépp taxul mu jox dafa am lu yàlla loo xamante ne moom nga jox nga ñàkk jox lépp yi teewul la nga war a am nga am moo tax daanaka yonent yëpp day ñëw jàngal nit ñi yàlla bu ko defee nag adduna nga teg ko fii du la ci war a am parce que moo lay topp léegi nag sëriñ sii may wax ni ki ko xàmmewut lu weesu léegi moom dem na ca ab sëriñ ci misaal sëriñ ba sëriñu trial am na ku bëgg falu doon président mbaa mu bëgg a doon ministère mbaa mu bëgg doon nangam ñëw di ko ñaan mun leen kaay leen yéen xale yi ma yar ma di leen tarbi jox leen ay lettre ni leen wér di leen ko na ngeen ko wér di milliards yoon ma seet di leen pour kii fan ka xamul lu tudd loolu gis te suuf diggantaan mu jaawale ko loolu jàpp na suñu tubaab moo tax ma ni ràññee lu am solo waaw nga ràññee sëriñ bi nga xamante ni léegi sëriñ buy làqatee projet la ak sëriñu diggantaan bi nga xamante ni li ko ñor lépp mooy ngërëmul yàlla ba ci la muy sëq nit ñi lay jariñ fii ci àdduna waaye moom amul ko ñu ndax li tax xamee bu baax mooy suuf yu piir diggantaan dafa ruusa yëkkati yëkkati taal taal ay loxo ñaan yàlla dara yi àdduna si daf ko ruusoon daf ci am kersa soo fi piir rus naa kàbbar jul ñaar raaka jël kurusam yor di junni nangam ngir at rus abul hasan al-Shaadili dafa am benn moom dinaan wax moom abul hasan ne kullu ismi tastajlibu bihi bihi nafa aw tastadfiu bihi al fa huwa xijaabun baynaka wa bayna bépp tur yàlla booy di ci xëcc ay njariñ baa nga di ci jañ ay lor sax kiiraay la si diggante yàlla yàlla dafa fiir day bëgg ñaareel nga jox ko si bopp booy fee bokkaale ay qualité yu bari mën ngaa bañ a bokkaale bokkaale dem waaye ba ci def dara rax ca bëggaat bëggaale naa ci biir loolu yëpp xeet bokkaale la ci tasawuf loolu nit tasawuf yi dañ koy am benn taalibe bu ñëw di ko ñaanloo ci dara ci lu jëm ci wàllu adduna daal koy wax bëgg nekk ñu ko dee ko ko fàttali dee ko fàttali sëñ bi mu di ko ko fàttali bu benn bés sëñ bi ni ko wax dëgg dem koo rus mu ne ko ah, sëñ ma gis la foo toll boobu dem na taal si loxo ñaan mu ko loolu ñaanu jàmm yàlla ñaanu jàmm yàlla ak ñaanu aajo bokk ñaanu aajo ko gii laa rus def te yàlla te àddina képp sama loxo ku bu ma ko tàllalee ak manqué li teg ci maddu yadi li xayri sil jalaali li xayri sil jamaali maddu yadi li xayri sil jamaali lam yakku indi min al kamaali mun loolu dug mat ci man daal di wax yàlla ne ko ma ñaan la nga gàntal ma sax moo ma gënal mbindeef di ma may mbaa malaaka di ma may mbaa jëne di ma may dara waaw boo dégg koo xam ne moom jaawale naa jaawale ba àgg ci di wax ne léegi dox ci géej gi ñu ngi koy réer waaye dara loolu la ko wax daan daal parce que da ngay jël laa laafu am tam rek nga ngay jël ab kàttan rey ko jël deret ji bind ci surtout Yunus boo ko defee nangu naa def nga xam ne moom jàpp nañ ko ndox julli gi suñu toog julli ngay ñuy dem di fab laafu tan pour jomal nit ñi ma ñëw loolu boobu boobu njëmte bu rëy te moom mu wax ni ma ñaan man xuka afdalu min al ihsaan ni malakin aw jinnin aw insaan ma ñaan la nga gàntal ma mu ma gënal rafetal bu jógee ci malaaka mbaa mu jóge ci nit mbaa mu jóge ci nit rafetal ku mën a doon fu mën a jóge rek sa gàntal moom gën li kaw ni man ay ka huwa alxataaya li mahwihi al uyuba xataaya kaw ni ixsaani al su ma la ñaan gàntal mooy jëmmi ak may dafay far ay ay ay waaye nag rafetalu mbindeef nag kiiraay la doon dox diggante nit ki ak borom moo tax nga gàntal ma moom a gën a may ku mën kooku nga di ko jaawale ba jàpp ne di jël laafam tam pour pour bind ca sóotu yoonu te binde ko dereti kàkkatar pour mën a dox ci géej gi pour jomal ni loolu lan lan moo ko war a nekkati Cheikh Abdou Khadre Jilaan baayam baayam dafa faatu muy gën a ko tuuti ñett ñi may tudd ni ñoom la Sëriñ Tuubaa wax ne ñooy ay sëriñam ci tasu bu dee ngërum bu dee ngër ci fekk ñeent ña la wax ñooy ay kilifaam ci ci ngër kon moom génnut génnut dig digal boobu si abxaar la loolu ko def tuuti bàyyam faatu bu mu demee ba war a jàng mu tàggu yaayam ni ko lenn rek laay dégg mu nga mu fexal fen ma ko rek bu fen mu ko ca ko jox ko fukki dërëm ak ñaar mu def ko ci poosam for ko gànnaay ba ñu demee ci yoon bi ñu dajeek ay agresseur ñu dajale leen ñun ñëpp téye leen ñu génne leen xaalis daal di leen làmb mboolem la ñu yor ñu nangu ko ba mu des moom muy gone ñu jàpp ñu dara gannaaw ñu koy mun leen fukk ak ñaar la ñu aussi ko gis ñu ko ñu nga ne ko nga ne la fukki ñaar ñu ne ko anam mu leen sama yaay moo ne woon ñoom foofu leer boobu dugg na leen ba fa lañ doxee tub war leen nitu yàlla benn baatam képp mën naa defar nit mbaa benn jëflante danañ def dara lu mel ni leen di lor fekk ne njariñ benn moo tax ñu di ko def yooyu nag dama bëgg léegi ñu xàmmee lii ñu ñu umbali ci biir Sénégal ñu xam ne ko muy sëriñ tasawuf bi nga xamante ne tàll ay loxo ñaan yàlla képp def ko ruus waxuma nag muy dem di ñaani jénne mbaa mu ñaan ay mala lu ruus na ko nga xàmmee ko ak njabarkat bi ak sëriñ Tara nga xam ne loolu moom dafa wax ne yaa rabbi in a'taytani fa shukr wa in mana'ta fa riddan wa boo ma joxee ma sant boo ma gàntalee boo ma it nag ma nangu dogal bi te muñ ko waaye nag bu lépp jàllee it ñu xam nun taalibe yi ne eh, bari na béréb yi ñu représenté Sëñ Tuubaa bari na loo xam ne murid la ñuy xool ñu correct ñu murid ñu baax lañ ba reconnaître la Sëñ Tuubaa waaye mën nañu gis ay murid nag ñu ñàkk normal ba tax ñu ni kon kenn kon ñu jàpp ne kenn yar kon mënul loolu ñu ko bàyyi xel bàyyi xel ne ay ambassadeur am lañ ci bërëb yi ñu maa nekk fexe ba comporté woon loo xamante ni danañ xaymal Sëñ Tuubaa damay wax jamono bu ne adduna lépp ak marchandise yi ñuy jaay ñooyam yow boo yoree sa yoon ba ko wane da koy defar ba mu rafet ba koo gis xamee ko bu ko xamee bu tit la gën a néew lu mën a doxanteeg mooy du ko bañ bopp waaye am noo koy bañ waxuma ñu koy xam waaye dañ koy te am na ku daan feeñ ci télévision bi di wax ne mën naa faj lépp ak njabar la jàng ba noppi nag lépp lu mu xam Sëñ Saliou ko xam xam ko ngi tuuma Sëñ Saliou ndax ka xamul Sëñ Saliou la mu nekkoon day jàpp ne ko yoo xamante ni léegi yaa ngi tooñ sëñ bi te yëgoo kon loolu lépp la ma jublu mooy ak ak nit tey ndax Afrique suñu borom doon nattoo ñaari mbir danoo nattoo bu dee ci diine talibi naar yee lañ ñoo fi indi diine ji ndax diine ji wàcc na ba mat juróomi téeméer at doo agsi fii Sénégal surtout Sénégal sax Sénégal bi nga xam ñetti xarnu yi yonte bi wax ni mooy xarnu yi gën ci xarnu yi mooy siècle bi mu dund moom ak ba ca topp ak ba ca toppaat ñett yëpp sax taxul diine ak seegul fii ci noonu biir Sénégal kon ci loxoy naar yi la jaar ba agsi kon mënuñoo doon loolu seen tali léegi nag loo fi gis ñoo ko bu dee tasawoo diggantaan bi ñoo ko te tasawuf foofu boobu nga gis noonu ñu bind ko ci tëre bind ay xam naa nit dima na lekk ñoo feet bu dee tasawuf lii mujjee ñëw mooy ñii di saaga tasawuf naan nekkuñu dëgg ñoo feet moom cité na ñi ñi ko ca doyo muy masaayix yi Sayyidina Jilaani wa Saadaliyu maahu Tijaani ñett ñi la wax ñooy sama sëriñ ci tasawuf a'immati fil fiqhi Maalikul Ali wa Shaafi'i wal xanafi wal xanbali kon ñeent ñi la wax la cité ci fépp ñett ñii la cité ci tasawuf léegi nag ka ka am sëriñu bu xaama boo xamante ne di koy jàngal lu ñu war a bind ci ci ci laafu tan di ko def nanga daa boobu na xam na wax kuy sëriñam waaye ci naar yi képp la jógee lépp ci naar yi la jógee jëlewuñu ko ci indien jëlewuñu ko ci perse ci naar yi la jógee waaye nag suñu tubaab ne moom ñi mu ci ñoom léegi kon yàlla natu na loolu mooy bu dee ci dina tali bi naan la bu dee ci àdduna tali bi tubaab yi yële jëkk tubaab yi di ñëw lan moo nekkoon Sénégal lu la ci ëmb rek xool ko ca mag ñee nga xamante ni jànguñ diine jànguñ tool lan mooy seen liggéey ca penc mi dañu nekk damee mbaa ñuy wure mbaa ñuy yoote ba bëccëg jot ñu dem añu bi ñu dafay del si nekkuñ ci dara leer jëkk tubaab yi ñëwee ceddo ya fi nekkoon danañ jekki ba guddi ñu ñëw ñu ñëw ni dëkk bi ku fanaan jàng ñu takk seen waaj ñu a dem dem ko mën ñu gurgud leen jàpp xale yi ak jigéen ñi ak jur gi daal day doom kon lii moo fi nekk ci Tuubaa kon loolu amee nañ leen ci ak cant côté boobu nga bi ñëwee la dañ ñooñu ñëpp ñëmeetuñ li daan def léegi ci fànn boobu kon nag kon nag noonu la demee nga xamante ne lépp lu fi ñëw ci lu ñuy fiy jëf muy lu baax muy lu bon muy ay caaxaan muy dëgg ci naar yi bàyyi ko Sëñ nag seggal na nu moom fa jële ba leer ko it muy bu dee ci tasawuf fa mu jële leer na bu dee ci fiq it fa mu jële leer na léegi nag ka ñëw nag jaxase ñoo nga jaxase leen ak ka nga xamante ne daa dem dajeeg kenn rek mu jàng ko yi kenn xamul di di ak cëriñ ak façon cëriñ bu mën a woote ku leen jaxas rek yaa ngi def njumte bu mag kon tarixa murit ñetti mbir ñaari mbir ko fonde muy xam-xam ak jëfe al ilmu wal xamal boobu muy jëf jooju moom la suñu wax sédd defar ñaari pàcc la tuddee ko al ubudiyatu wal xidma jaamu yàlla ak liggéey waaye bu ñu nee al ilmu wal amal rek xam ak jëfe rek lépp dugg na ci dina jëpp dugg na ci biir léegi nag détail ci la dugg ba tax mu tuddee lii ak xidma ñett yi kon ñooy fonde ñoo fonde tarixa bi bind yi bind yépp nag gënu dig ci njëlbeen ginnaaw bi fi ma war a jógee tuuti rek bañ koy wax ni ko léegi bu mën a ñëw ànd ak Lat Joor defal féete ko fi féete ko fee ca la bindoon xasida googu tàmbalee ca xaaloo li yarkan li abwaabi salaatini taxu si jawaair sa tuxni kulla ma xiin fa qultu xasbi rabbi waktafatu bi wala surabi xayril ilmi wa din dara xam ak din mu dellu ne al ilmu wal amalu de ñaari gaal gànjaat yoo xam ne mën jënd yiwu àdduna ak alaxira delluwaat waxaat ci geneen xasida ni inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa kon xam ak jëf yàlla ak ko loolu moo fonde tarixa bi comme dafa tënk rek dafa tënk diine jëpp rek ci ñaari baat yi comme ne Isa tënkewoon diine jëpp ci wa aw seeni bis salaati wa zakaat Isa dafa tënkoon diine jëpp ci yàlla dafa maa dégg julli ak woo ak asaka julli bi nga ko waxee bépp jaamu yàlla boo dox digg nit ki ak borom dugg na ci ron julli muy jàng euh, sikkar ak euh, lépp ak jul ko lépp lépp képp jàmm yàlla salaat ak zakat ba ci koor dugg na ci ron asalaatu ak zakaatu bu ko waxee bépp jëflante bi war dox léegi nit ki ak moroom dugg na ci ron asakaatu kon diine la tënk foofu ci ñaari bañ mooy li sëñ bi tënk nag ab tarixaa dem ci euh, ibaada ak xidma ab tënk la lu ñëwaat rek ay détails la ci loolu lu ñëwaat rek kon détails la ci loolu lu sëñ bi diglewaat rek am détail la ci diggante jaamu yàlla ak liggéey kon baatu màggal lay am muxaddima la pour ràññee rek waaye màggal lan lay tekki sëriñ bi moo tudd tur woo waaye mu ndaxañ ci biir mooy sant ndax dafa dafa woote ni damaa bëgg bis bii saa bu ñëwatee képp koo xam ne sama mbég te sa mbég la nga demee ci sant la sama ndax lépp lu moom ci laa ko kon ak cant bañ bañ koy def nag bi suñu soñ bi mu ko daan suñu boobu ceeb daa jafe loolu nii waaye kër boo demee fekk ceeb yi bari loolu nii ceeb ndaw ñu ne waaw lu ne ah la waaw tabaski waat comme ni la daal bu leen ko wooyee tabaski waat ndax loolu bu leen ko ko wooyee dañ mel ni bidaal buñ société yi leen ko wooyee màggal dégg nee baatu màggal comme si ñoo ko tuddee waaye kon màggal mooy sant ca suuf sant la ba noppi nag tur wi tur wi di mag kon nag kon sant lañ tudd waaye nag kon cant gi ñuy waaj def muy màggal bu mag kon du tabaskiwaat ndax tabaskiwaat kon day mel ni biddaa lay tekki te suusu ngay waaye bokkut ak yëpp cant ki américain yi def ñu di ko wax Thanksgiving ñu ngi sant nga xam ne bis boobu danañ ci rey lu mat ay ay ay quarante quelques millions ci ay copines te tuuti lañ cee mos la ca def ñu kon nañ xam ne sant gii du ak tabaskiwaat ba mu mel ni bi daal waaye toppandoo ñu ay américain bi mel ni teg si gi mbirum yàlla mu leer moo xamante ni dafa tegu ci ay addit la yu leer ci alxuraan ak sunna loolu nag ci lañ bëgg waxtaan tey ji incha allah waaw muy cant la goo xam ne yàlla na ko digal bu ko defee léegi lañ cay ray ci ay nag ak xar ak gileem ak ginaar danañ ci jëfandiku sarxe ja def ci itaamu taam li suñu borom digal lépp danañ ko mën a feeñal ci bis jox jokk ci ak bokk kon bokkut ak cantu américain yi cantuk américain nag dëgg la la ko sababoon dëgg dëgg dëgg mbirum dina lool ndax dañoo wax ne bi leen église bi sonalee fii ci Europe gi bañ gàddaay ba dem ba àgg ak coono yi ñu jànkonte bañ amee am diir ba lépp ñu tekki nag bañ am lu ñuy dundee lañ jàpp bés bi dañuy sant ko yàlla ñu leen doon sant dañoo fa nekk réer nañ ko ba dañ naan léegi lii mbirum suñu yoon nekku ci di léegi sant yàlla waaye nag yàlla cosaan la yàlla xam nañ ko jël kon sëriñ bi sant leen digal ak cant nag suñu borom moo ko jëkk digle yonente bi digle ko yonente yi jiitu woon yonente bi yépp it digle woon digle woon sant bu dee suñu borom fi mu ko digle ci alxuraan mooy fas kuru ni azkurkum waskuru lii wala takfuru bu na ngeen may fàttaliku boo ngeen ma fàttaliku dinaa leen fàttaliku fàttaliku yàlla rek mooy fàttaliku yàlla mooy nga ngay xool ay ndigalam di ko jéem sa kem kàttan di xool ay tereem di ko bàyyi sa kem kàttan na mu lay fàttaliku mooy saa boo ko soxlaa mu wuyu la saa boo ko soxlaa rek ci loo loo bëgg mu may la ko boo ko soxlaa ci loo ragal mu musal la si kon loolu mooy fàttaliku yàlla parce que loolu nii askan da ngeen may fàttaliku ci buy neex buy naqari danaa leen fàttaliku li ma itam ci jamono bi buy neex buy naqari waskuro lii wala takfur waskuro lii mooy na ngeen ma sant mooy nangul ma nangul ma samay jëf wala takfur mooy bu leen ma bu leen suul jëf bu ko suul kufraan mooy suul jëf kon loolu ndigalu suñu la sant boobu it mu def ko muy dayob jaamu yàlla muy washkurullah in kuntum iyaahu ta'buduun bu fekkee moom dong ngeen di jàpp da ngeen ko sant noonu suñu borom digle jàpp dellu it wax ni bu ma leen di bind di leen jox ay nopp aku làmmiñ di leen jox ay bët aku xol bëgg ngeen sant maa tax ma di ko def la'allakum tashkuruun noonu la ko loolu la wax ni wallaahu axrajakum min butuuni ummahaatikum laa ta'lamuuna shay'an yàlla bi mu leen di génnee seen i biir ndey xamu leen dara wajax lakum sama mu defal leen ay nopp wala saar ak i bët wala fay data ak i xol laallakum tashkurun yëpp rek ngeen sant yàlla bi leen di génnee ci seen biir ndey xamu leen dara moo leen defal ay nopp yu mën a taatan xam-xam leen ay bët yu ngeen mën a gise xam-xam ba leen xol yu a taatan loolu nopp bi di jël bët bi di jël waaye nag la koy taatan xol la dama leen ko defal nag laallakum tashkurun ndax ngeen sant iblis moom képp la suñu borom wax ne suñu noonu noonu noonu benn noonu dana yàlla jàppaloo muy iblis inna sheytaan lakum na jàpp mu yàpp noonu boobu li ko a ñor ci doomu aadama mooy sant boo loo xam ne ko sant danaa dafa naa dox ba sant bi la ko kon li ko ñoroon iblis lépp ci noonu moo ñu bañ a te loolu mooy fatma axawayta nii comme dooloo nga la aq'udanna lahum siraataka al-mustaqima dinaa taxaw ci yoon wu jub boo si diggante ñoom summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamaa'ilihim wala tajidu aktharahum shaakiriin dinaa fexe ba ñu ëpp ci ñoom duñ sant noonu na la waxee kon loolu la duñ fexe moom Iblis dinaa leen jaare ci kanam jaare leen ci gannaaw jaare leen ci ndijoor ak ci càmm ndijoor dañu wax mooy côté jàmm yàlla lu baax nit mën na cee mën na koy def Iblis jaar fa yàq comme ni nga xamante mën na ko jaar ci côté mooy yàlla loolu mooy waxan ay wa an shamaa'ilihim ni ko wala saakiri waaye nag loolu yi mu waxoon nag dëgër na ci góorgóorlu ci ba suñu borom may na ko ndax may gi mooy yàlla ci boppam na ne ñu néew wax na ne wax wala si anshaakum wa jaxal lakum sama wala absaar wala fidata xalilan maa tashkur daal nag maa leen leen ay bët ak i ak i xol waaye nag néew na ngeen sant kon saxal na la iblis na danaa ko def yàlla saxal na ne am mooy néew na du ngeen sant wala tajid aktarum shaakirin la waxoon yàlla delluwaat ci alxuraan wax ni wa qalilum min ibaadiya shakur delluwaat wax ni inna allaha la fadlin ala naasi walakinna aktar naasi laa kon ñu ëpp ci nit ñi du ñu sant kat suñu kon yorente yépp yi daan soññee sant di fàttali ndax soññee sant mooy mooy man la xamal yàlla moom defal naa ci misaal bu leen ne yàlla defal na la ay bët defal la ay nopp defal la ay loxo defal la nga wér defal la nga am xel kee def na ko mu dof kee mu def ko mu batt kee mu def ko mu gumba kee mu def ko mu laaj naa doo sante yonte nañu daan fàttali nit ñi xew li mu jege leen loolu te di ko fàtte ku mel ni yonte yàlla xóot dañu waskuru iz jaalakum xulafaa min baati xaw mi na ngeen fàttaliku ne yàlla yéen ñi def teg ginnaaw bu nooyeen jàlle defal leen nanga bu nanga ginnaaw bi yonte yàlla saali bi ñëwee dañuy waskuro istan aleykum xulafaa min baadi aad na ngeen xam ne ñi def yàlla wutal ginnaaw bu mu alagee niti aad kon na ngeen fàttali ko xéwal leen yàlla defal ngir mën koo sant ibrahim yonte yàlla ibrahim dafa ñaan suñu borom yonte yàlla ibrahim dafa ñaan suñu borom ni ko warzuqhum min as-samaraati laallahum yashkuroon ne ko na nga leen ñii ma dëkkal fii ci xur bii te amul ab bayukaay amul mbay amul dara maa ngi lay ñaan nga wërsëgale leen ay meññet ndax lee ñu sant la laallahum yashkuroon bu ko defee nag mu des ñu jàngal baatu ak sukkuru sant kooku mooy la ak ban xeet ak nan lay dem man li ma waxoon ci njëlbeen bi muy sant moom benn détail la ci détail baatu jaamu yàlla gi tax suñu borom bind de léegi bi mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibaada boobu la ñuy def ay taxaasir ay baat yu bare bari yoo xam bu ñu leen sant zikar julli woor natt asak ay màgg yépp ne ay ay détail ci baatu ay bu ko boo dee boobu moo mu mel ni maqaama yi iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'iin sukru muy sant benn benn maqaama benn étape la si étape la boo xamante ni da nga jaar jàll ci nag jàll ci nag jàll ci nag waaye ab étape sant nag ni ko sëriñ Bachir waxee ci Minanul Baaqil Qadiim jëlee ko ci imam Xasali imam Xasali dafa wax ne sant ci xam-xam lay bàyyi ko ak yëg-yëg ak jëf ilmu ak xaar ak xamal ñett yi ñooy ñooy nosu pour cant mën a taxaw xam-xam bi moo jëkk mooy indi yëg-yëg bi yëg-yëg boobu mooy indi mën ko jëf xam-xam mooy la xam bi mooy xam ngay xam ne xéwal sàngam gi yàlla moo la maa ngi dund lekk maa ngi naan maa ngi dox maa wax maa ngi gis ñu ko nga gëm ni lii ak xéwal la yàlla te yàlla yëg-yëg mooy xam-xam bi ñu yëg-yëg mu ci ba mu ci doon mooy gën a ko xam ne yëg-yëg bu nga war a am mooy mooy mooy mbégte bi ngay am ci loolu la yàlla def mbégte moom mbégte mu xol moom kon ginnaaw boo xam ne yëg-yëg yëg mooy mbégte bi jëf ji nag mooy nga fab xéewal boobu delloo ko ci lu neex yàlla ma la ko jox ndax li wolof di wax ni ku abal ay bët nga xool fa comme moo la jox ay bët ne la ci lu lu ko neex fexeel ba lu ko naqari nga damu sa gis bi loolu mooy sant yàlla ci ay yàlla moo la ay nopp ni la dee ci déglu lu ma neex fexeel ba la ko naqari boo ci déglu loolu mooy sant yàlla ci ay nopp aw laa mu jox nga war cee leeral lu jëm ci yàlla war cee leeral lu lay jariñ àdduna mbaa mu jariñ nit ñi àdduna alaxira léegi lu dul loo boo ko jëmewul foofu rek sant ko yàlla sant xéwal ko ay tànk ay loxo noonu bépp kàttan bépp delloo ko ci loo xamante ni dana neex yàlla mooy mooy mooy sant ci ca ca xéwal loolu mooy sant kon sant xam la. ak yëg ak jëfe ko ci say cër jëf joo xamante ne day day day neex kala defal xéwal gi moom la sëñ bi wax moom la sëñ bi wax ñetti bay ci wenn bay ci misaal bi naan ni xaqiiqatu sukri la daa man alima suhuduna min sil jalaali niama moom dëgg-dëgg sant daal mooy seere ngay seere ni xéwal gi ci yàlla wa amadu biha ak jëfe jëfe ko nag lisaanan wa janaan fi kulli ma yarda wala fi kulli ma yurdi wa ruknan yustaba yustaba nga jëfe ko jëfe jëfe ko ci sa saw làmmiñ jëfe ko ci sa sab cër sa xol jëfe ko ci say cër ci lu neex yàlla nga fab cant gi di loolu mooy nee na mooy dëgg gi sant Ibnu Xayyim dafa wax ne sant ci maqaama yi gën a kawe bokk ndax mooy xaaju ngëm bu ñu nee al iman ñaari xaaj la xaaj nis benn wàll sukkur la sabru la muy muñ bi ci des di sant kon boo sante rek genn wàll nga moom yóbbu nga tey suñu dafa dafa def ñaar lu ci ëpp ab santkat bu ne ab muñkat lay la muñkat gis mu mën a la la mu ko muñ lu ci ëpp bu amoon ab santkat lay la moo tax mas nañu laaj suñu tubaab léegi kan moo gën kii sant kii muñ mu ne ñoo ànd foo fekk ab santkat ab muñkat la foo fekk ab muñkat ab santkat la daal ndax suñu borom moo wax ci alxuraan ne inna fi dalika la ayatin li kulli sabbaarin shakur ñu ànd ki nga xamante ni bu amut firfiri fu ne mënu fa teel teel wax ko fay bu amoon day daw fa du sant ñu ànd Ibnu Xayyim wax ne kon ci maqaama yi gën a kawe la bokk ndax mooy xaaju ngëm ndax ngëm moom bu ñu ko xaaj ñaar xaaj benn buñ la benn bi sant kon sant mooy xaaju ngëm daal di wax it daal di wax it ni ci juróomi keno lañ koy tabax première ba ci jëkk mooy nga torox loolu ki la may may bokk na ci sant nga nga mokkal ko nga torox loolu ñaareel ba mooy nga bëgg ko bëgg ko moom mi la ko may ñetteel ba mooy nga nangu ci sa xol ni xéwal gi moom moo la def nga yamal nga reconnaître nangu gi léegi ci sant la ko ñeenteel bi mooy nga di ko ci tàgg ci sulaaj bi ñëpp di ko tàgg ko waa amaa bi nga dara bi faal moom ko defal yaa may nangam sant naa la ci nangam juróomeel bi nag mooy nga def ko ci lu lu ko neex nga di ko jëmee ci lu ko neex lam la xéwal gam la may nga def ko ci lu ko neex kon juróom ko ne yi nee na mooy kenn yi nga xamante ne pour cant gi mën a tax wax na it ni dëtt xéwal xéwal gi dafa am nga xam ni am xéwal gi danga koo am te yëgoo ko toujours nit a ngi dund ci xéwal goo xam yëgoo xéwal gii nag day koy yaakaar te jotu ko ñetti xéwal yooyu ñoom yàlla nag nee bu nammee bu la namee mottu leen xéwal gi mu la tàmbalee defal ko yëgloo ba nga xam ne lii xéwal la nga nangu ko caa sant bu ko defee boo ko ci mooy indi nga ci kanam moo koy saxal dana ko indi la ci kanam yàlla bu na namee dimbali am jaam da koy xamal li mu am ci xéwal ndax bari na koy dund ci xéwal te yëg ko bari na ko naan damay xaar nga xaar ji parce que dafa amul nanga na dafa am ko des mu laq laqati ko te pourtant ni nga junni xéwal yoo xam ne yëg ko yu ko yàlla xam di ko kon Sénégal am na xéewal gu ñuy tudd xaw ma xam ne xaw ma xam ne muy jàmm jàmm jooju nag jamono bi toll nii dañoo toll ci di ko regretter di ko yàq parce que pas-pasu jàmm jàmm ko ci li gën a mën ne andi aw ay jaay nañ ko Sëñ Tuubaa ak fi mu toll mooy nga dikk wax ca lu la neex ma léegi moo bu fekkee ni léegi yow ma ko wax dangaa dajee ku mel ni yow lu muy andi lu andi ay te loolu lu mat di bàyyi xel la muy jàmm jëm suñu borom ñu xam ko di seet ñu ñu koy aare di ko waggar di moytu mu dañ kon bu ñu waxee sant mooy xéwal yu la nga activé ko ci lu neex yàlla ngay activé xéwalu dégg xéwalu gis xéwalu xol ko ci lu neex loolu mooy sant kon li nu sëriñ bi woo muy sant mooy li mboolem yonent yi woote leer na na yonent yépp moom la ñu woote muy fàttali bu xew yàlla di kon leer na lim woo mooy di yonent yépp woote woon muy mooy sant yàlla te jëkk mënu koy sant yi moom daf koo jëf ba noppi door ko sant kenn ndax li ngay santaane te defoo lu ci ëpp yàq wax lay lay doon ndax tarbiya boo koy def la nga jëf moom la gone gi mën a jël moom la gën a mën a jël ci li ngay wax moo tax da koy jëf booy wax nga doon ko wax am na benn borom borom xam boo xam dafa am ku ñëw ci moom ne ko dañoo bëggoon nga waaraate ci lu jëm ci goreelu jàmm ndax li ñu am jàmm mooy solo ñëpp dañoo bëggoon nga waaraate ci goreel jaam ndax léegi ñu goreel mu yeex koo def lool dem lu yàgg yàgg dootu ko def bis ba mu dikkee def xutba waaraate ci goreel jaam ak la ci nag ci ngeneel mbooloo bare baree bari daal ci jaare ba goreel goreel ay jaam ba jaam boobee doxe ci gore ñu gore wàll ci biir mbooloo moom mu ñëw sëñ boo ko léegi dafa yàgg te defoo ko mu ne ko boobu damaa amatoon jaam moo goreel te bëgg maa wax nit ñi lu ma defut bi ma demee ba amul jaam ba goreel ko laa ko doon digle waaye ñoom dañu daan bàyyi xel li ma tàppoo la ma la taxaw la bala ngaa taxaw di wax dara nga jëf ko ba xam jëf ko ko door ko wax sëriñ bi dafa wax ne waajabtu kal yawma bi sukri ni'am qawlan wa fi'lan anta xayru mun'imi mun yàlla jaakaaru naa yow tey jii ci sant xéwal yi ci wax ak ci jëf ni ko askuruka yow bi xalbi wal qalam wa li siwaaya yatawajjaha ni ko maa ngi lay sant ci sama xol ak ci sama xalima lépp lu baaxuti feneen day jëm fu dul ci kon Sëñ Tuubaa dafa sant yàlla ci côté yëpp loolu digg ñu sant ko sant nag sant yàlla day lu war rek ci nit ci jamono yëpp nag mooy bi nga wéree santal yàlla boo wéree dégg da nga war sant yàlla sag ndaw dell sant yàlla sag màggat del sant yàlla boo ñàkkee del sant yàlla boo amee del sant ndax li tax ñu ne boo amee del sant boo ñàkkee del sant yàlla mooy am bi boo sant yàlla sant yàlla kon mën naa naan ñàkk gi boo sant yàlla yàlla mën naa tëdd ba nga gis loolu te lu ci ne ma nga mu denc moo tax wet yëpp nit daa war a yàlla boo libéré boo libéré doo war a sant boo bégee la boo la booy tukkee booy toog booy bégee booy nax booy amul naxar lépp ngay sant yàlla ndax am na benn woykat boo xam ne am yun'imullahu bil balwa wa in azamat yàlla mën naa def nit ki mu nekk ci balwa ci musiba fekk wuute moom xéwal la xéwal la mu la muy nur nur rek ndax loolu mi ngi mel tuggab sëñ bi si géej gi rek tuggab sëñ bi si géej dañ ko na dañu daan gis mu nekk neexma fii tay si neq ma xéwal waaye dañu ko ëmbee couverture mbugal te fekk lépp xéwal moom la wax ne xad yu ne ay mutlaahu bil balwa waaye naasuma yàlla mën na laa xéwale te jaare ko ci ay nattu ak lu nattu réer ne mën naa am xéwal la fi toll wa yabtali baax dan naa si bi neex ni am na ñoo xamante ne xéewal la leen def waaye xéewal boobu fekk am nattu la ko yàlla mën na laa def xéewal fekk xéewal gi am nattu la mu andil la luy mel fekk nattu bi xéewal moo tax ñu bëgg julli di sant ci côté yëpp ndax xamul dara na ku ñëw ci benn borom xam di ko jàmbat di ko jàmbat di mu ni ko yow yaa ngi si ñaari bët di xool mu ni ko mu ma joxoon téeméer junni pour nga ñàkk ñaari bët da nga ci laa ma jox la téeméer junni ñu fukk sa ñaari nopp mu ne ko déet mu ne ko ma jox la téeméer junni pour nga ñàkk sa ñaar loxo yi mu ne ko déet mu ne ko ma jox la téeméer junni pour nga ñàkk sa ñaar tànk mu ne ko déet yow ay téeméer téeméer junni mi nga yor noppi sax di jàmbati ci ko mu ne ko li nga yor yor nga ko yor nga ay téeméer téeméer junni ba noppi di jàmbati ci ko ndax ginnaaw benn bu ci ne bu ñu la fay téeméer junni doo ko jël léegi yor nga ay téeméer téeméer junni jàpp sa loxo naka noonu mu fekk koo xamante ni moom première fois dafa silmax gisul ñaari tànk yeeg ñaari loxo yëpp yi dañu ko nekk ma ne ko muy sant yàlla maa ngi sant na loo xam ne def lu kenn jàng waaye ni ko ah yow looy sant yàlla yow problème bi dal na <laughs> ne ko yow gisoo say tànk amuy tànk loxo ma ne daal ah, maa ngi sant yàlla looy sant mu ne ko li may sant yàlla mooy yàlla defe na ma laaj ko mën a sant bàyyi na maa xol bu mën a muñ lii ma teg aw yaa xool xol bu amul ragal yàlla bàyyi ma ak yaram bu mën a muñ lii laa koy sant tam day sukk ak cant am benn buur waxtu laa jot dafa am benn buur boo xam ne dafa am ku ñëw yëkkati kaas ndox ni ko kaas bii buñ la ko terewoon ne doo ko naan ne moom ndox maa ngi nii waaye doo ko naan loo ci man mu ne ko sama genn wàll góor naa ko ci man te muy dëgg kaas bu ndox boo amoon ëpp naa ci biir kaas bu ndox ñu tere la ko nga la ko doon jaayee nga xaaju ma da ko jënd waaye nag boo demee ba ndox ma war loo ci mën mu ne ko xaaju ma naa ko yoroon a tur ñu laajee xaaju ma gi da ko tam kon ndekete mar bëgg naan naan képp xéwlu bu boo amoon ëpp naa ci biiram ñun la doo naan bu ñu la ko doon jaayee ngóor gi da ko jën boo amoon àddina ak lii bëgg a tuur ndox mu laaj sotti bu ñu la ko doon jaayee xaaju ngóor gi da ko jënd kon nit jamono bu ne mi ngi xéwal yu bari boobu yaay bu kon loolu mooy benn xaaj bi ci xaaji sant yi ñu sant yàlla ak ni ko war a sant xaaj ñaari bi mooy sant ñaari wayjur yàlla ko digle moo digle anuskor lii wali wali dégg maa ngi koy wax naan mëri lam bii da ngay dégg naan maa ngi sant yàlla sama ñaari wayjur ñu jàpp ne ay tax yàlla ko wàcce allah ne an sukkur lii wala wàllu léegi na kon sant yàlla wax la jëf la ak nangu ko ci ab xol waaye ni ñuy sant ni ñuy sant yàlla bala ma ak ñaar wa nañ la xeeti sant yi des na ko wax des na ko jëf boo defee wax ji moom leer na mooy wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith li la yàlla li la yàlla defal nga di ko waxtaane waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am xeeti cant yu mu jàngale yu bari yu bokkut première daana def lu ko neex boo ko suñu doon defal lu ko neex mu sujjóot ñu di ko ci tujjee sujjóot sujjóotu sukkur li di sujjóotu sant di wax ni alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimu saalihaat maa ngi sant yàlla mi nga xam ne ci xéwalam ci la yu baax yépp di bu fekkee dara dafa ñëw neexu ko mel waaw ndax yàlla mayut kenn lépp li mu bëgg ndax am na ñuy ñëw ci moom jébbalu mu yabal ay ay juróom-ñaar fukki saxaar pour ñu jàngale alxuraan ñu rey ñëpp juróom-ñaar fukki saxaar ñu rey la ñëpp te ñoo ñëpp moo ko alxuraan dañ ñu yabal pour ñu jàngal ñu alxuraan ñu rey la kon loolu musib waaye nag musib musa ñëw bu dee lu ko neexul day wax ne day wax ne alhamdulilah ala kulli xaal waaw noonu lay sant kon sant des na ko def ci sujjóot ko def ci julli ndax yonte bi di julli di julli ba tànk yi neew ba sonn ay saak yi quoi lu tax ngay te yàlla jéggal la li woon jiitoon ci say ci mujj lépp yàlla mu ne ko afala akuna abdan shakura ndax bi ma yàlla defalee loolu lépp yi duma ñu xam ne kon julli taxaw di naafila yi naafila yi war des na ko def ngir sant yàlla sant des na ko def ci koor koor yonent bi dafa jógee màkk ñëw Madina fekk yahood yi ñuy woor bisu Ashura mu laaj lu tax ngeen di ko woor ñu ne ko bis bi day bu rëy ci noonu ngir yàlla ci la defal Muusa nangam nangam euh, ci la ko musale ci ab noonu muy Firawna moo tax ñu di ko woor ngir sant yàlla bi ni leen noo leen gën a yaay ci Muusa ba tax mu di ko woor diggal jullit leen dellu ko ndax ñi gënuñ leen yaay ci Muusa kon woor ak cant waaye nag woor sant ci rendi rendi dañ ci sant loolu loolu yi nag moo ci gën a mën jàpp gën a fonk nii ngir sëriñ moom la ñu te fi mu nii ku ci dajewoon ak ab salaf yi moom la li ngay def bi daal nga jàpp na waxante te waxut sant dañ koy def ci rey ngir sant loolu yëpp dina leer incha allah kon li abu abdurahman daan wax ni julli sant la woor sant la lépp lu baax looy jëf ngir jëm yàlla ak cant day dugg biir kàddu sant te sax li gën a yéem sax mooy li nu sëñ bi digal mooy rend ci gën la bokk ci sant yi gën ci cant boo demee ci im fatawa im taymi im taymi im taymi daanaka mooy njiitu salaf yoon ba muy tafsir eh, fa salli li rabbika wanhar daf koo firee ni lañ ci jublu mooy julli ak rendi rey sarxe mooy li gën a rëy ci lu lu ñuy jege lu ñuy lu nit di sàkkoo jege yàlla julli ak rey sarxe ci li lii gën a rëy ci lu ñuy jege yàlla loolu daal dafa mel ni dafa jubloo wax ne ko léegi bi ñu la joxee xéewal gu bari gii dañoo bëgg nga taxaw santeenu ñaari xeet jaamu yàlla yi muy di julli ak di rey fa salli li rabbika wanhar mu ne dafa mel ni da ma la jox xéewal yu mag damaa bëgg nga sante nu ñaari xeeti sant yi muy julli ak di loj di rey ngir sante ko xéwal yi ma la jox mu delluwaat moom ca biir tafsir boobu wax ne jaamu yàlla gi gën a rëy ci jaamu yàlla yaram mooy julli yàlla gi gën a ci jaamu yàlla ak alal mooy rey sax rey sax mu wax ni yonte bi ndigal loolu ko suñu borom def na ko ndax bari na loolu lu mu daan julli di bari loolu lu muy rey di sax ba ci xajatul wadaa aj gi mujj ak foofu ci mag rey na ci juróom benn fukki giléem ak ñett ci loxol boobu moom yonent bi lépp mu sax kon rey ngir sarxe dafa bokk ci ak cant ci yi gën sax la bokk loolu lañ sa mbir kon moo dama salafi yee sax kon sax xam nañ boo demee ci Ibnul Xayyim dafa am benn téere bu ñu tudde ko Tuhfatul Mawdud bi ak ahkaami mawlud maanaam téere tudd doom moo wax ni rey rend gi ñuy rendi doom ji am xar maanaam jaamu yàlla ngi ci sant yàlla ngi ci ak jot sa bopp ak sarxe ak joxe am na ci boo amee mbégte mbégte mu ne ngir feeñale ko ak cant ci li la yàlla ba ci ba ci tudd ngénte xar mi ngay rey ak cant lañ ci gën a jóg ba ci borom xam-xam yu mujj yi ñi may wax ñu ay borom xam-xam salaf yoon lañu ku ñuy wax euh, Mouhamed Ibn Sadi al Husayni nit daf ko laaj ne ko léegi euh, gàtt bi ñuy rey tudde ko am hadiyu ci ki def aju xiraan mbaa tamattu ndax dafa war walla ngëneel la mu tontu ne loolu ngëneel la ci buntub sant yàlla bokk ndax ki def ki aju aju tamattu ak ki aju xiraan yàlla dana na booleen ñaari jaamu yàlla muy aj ak umra ci benn tukki moo tax ñu war a feeñal cant yàlla ci ci rey hadiyu waaye kii def ifraat ci aj bi nga xam aj képp la def kooku du rey kon ba ci xët yi moom ñuy tudd di ko def ci boo ajee aj gi ñuy tuddee tamattu mbaa nga def ko ci aj gi ñuy tuddee xiraan xët yi moom képp ak cant lañ jël ci li la yàlla booleel ñaari xeeti jàmm ba tey ba moom sax moom Cheikh Ibn moom li ko laaj ne nit ki bu fekkee doomu dafa admis wala mu raw ci fa doon jàng ndax am nga droit dajale say xar di di ray am xar ngir si ko sant yàlla mu ne loolu mën a nekk nit ki bu doomam amee benn mbégte naa dajale ay xaritam ak xarit doom rey joxe aw ñam ngir sant ko yàlla waaw yëpp bu dajee sëriñ bi may wax toujours ni wenn benn nitu yàlla kuy indi diine ji waaye aw dégg bi la ñu am benn say say dégg mën a caag mbaa su ne su leer dina. ñoom li ñu def ko wax ndax xanaa si bi mënta dem fenn is jumia al xayru fii littibaar wa jumia al charru wax na ne yiw lu baax lépp dajal nañ ko ci topp sunna yëpp ñu dajale ci bidaa ba noppi nag digle loo xam bidaa lay nekk mënta nekk la digle waaye nag sant it dafa am lu ciy dimbale nit la ci jëkk mooy nga xam ne xéwal gii yàlla la boo ko yëgee ci sa rek loolu bokk na ci lay dimbale ñu war a sant ñaareel bi mooy bokk na ci li dimbali ci sant ngay xool ña lay yées te bañ a xool ña la xoolal ka nga xam yaa ko ëppale te bañ xool feneen bu dee ak wér-gu-yaram la gis nga koo xam ne mooy wérati bu dee koo xam ne bu dee lu mu mën a doon rek am na ñu la ci yées boo xool rek mën a sant yàlla moo tax bokk na ci li dimbali ci sant yàlla xool ña ko yées ci loolee mu bëgg a jàmbate waaye nag jihaad ak seetaan yi nag bu mën a doon rek nga bàyyi xel seytaan di ko fàttali ko di ko bàyyi xel dana tax nga mën a sant ndax ginnaaw moom lam doon xas lépp mooy walaata jihaad faram saakiri day jar rek di sant sax ngir ngir toroxloo ko nga ne sant mooy liy téye xéwal gii nga xam ne ko mën a téye loolu bokk na ci liy dimbale ci muy sant yàlla ak di ñaan yàlla ndax yonent bi dafa jàngal moo si mu jabal ni ko del wax saa bu mu jullee ne ko allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik del ñaan yàlla mu dimbale la ci di ko fàttaliku dimbale la ci di ko sant dimbale la del ñaan yàlla mu dimbale la ci jaamu yàlla jaamu yàlla ko rafet booy bàyyi xel ni xéwal gii su ma ko sant gi moo koy tey su ma ko santut mën naa réer dana la ci sant gi ndax euh, ak xéwal saa boo ko santut mën ko ñàkk xisab Ibrahima dañ ciy nettali ne Ibrahima de ginnaaw bu ñu tegee Ismaïl foofu ci mag dafa ñëw di ko seet si ginnaaw bu Ismaïl takkee soxna ci waajuram ba mu ñëwee fekk fa seen soxna mu ni ko ana sa borom kër mu ne ko dafa génn pour di rëbbi duñ jëfandikoo mu ne ko noonu def mu ne ko fii di ñu ngi bëgg te nangam nangam ba mu jàmbatee bàyyi Ibrahima ne ko bu ñëwee nekk ko na sa doxul buntu ba mu ñëwee mu ne ko kenn ñëwul fi mu baax am na góor bu laaj na ma ma wax ko naan mu ne na nga sax jox ko mu ne ko kooku sama bàyyi joxe ndigal naa la fas daa dugal nga xam ne lépp santu tax na mu joxe ndigal ni ko mu ñëwaatee fekk fa keneen ku baax kam mu laaj ko ko léegi noo def mu ne ko ñu ngi sant baax ndax ñun ndawal la ñuy lekk di naan soow di ndox mu neex naan naan ko bu ñëwee nee ko na dëgëral doxu bunt bi mu ne ko sama papa dafa dafa joxe ndigal ci naan naan tey dëgër nga xam ne sant toujours dana dëgëral xew bi waaye ñàkk sax yi dana tax na ci liy sant yi nga xam ne sant jikko yi suñu borom la jubloo jikkoo jikko yàlla nag bu fekkee moom nga jubloo jikkoo dana la ci ngay sant ndax yàlla shakoor la shaakir lahu shaakir wa shakoor suñu dafa wax ci alxuraan wa man tatawaa xayran fa inna allaha shaakirun alim dafa wax ni képp koo xam ne coobarewu def lu baax de yàlla saakir la alim delluwaat wax ni wallaahu sakum xalim delluwaat wax ni inna allaha gafurun shakur ca sootu sóora santu yàlla ni muy sant jaamam lu ci ëpp ñaare tuuti ngay def su ñëw ñëw tooy lu ci ëpp da def tuuti mu fay lu bari ndax bokk na ci yàlla shakur tuuti ngay def mu fay lu bari àdduna dinaa dafa am yamukaay te yamukaay bi dañuy gudd gudd nit gën ko gàttal te li nga li nga fi jëf nu mu toll mu fay la aljanna joo xam ne xaalis dina fi abadan kon yàlla sakoor mooy loolu def daf koy fula fula fula loolu naka noonu lu néew da ko def mu sant la tabal la ci aljanna ndax li ma waxee ne yonent bi sallallahu nee na dafa am ko mar ba fekk ab teen mu jël aw botam tànk ndox naan bu noppi geestu gis ab xaj bi mëq bàq ngir mar mu ne xaj bi di li mooy gaar bu gaar daal di delluwaat takkaat ba luy dugg ci teen bi génnee ndox nga génne ndox jox ko xaj mu naan ba mu màndee suñu sant jëfam jooju ba tabal ko ci aljanna te naa mu si def sax lu baax la jiitu waaye yàlla mooy sakoor mooy saakir lépp loo def ci lu tuuti da day fay lu bari loolu mooy sakoor bokk na ci sant yi nga yëg ci sa xol ni sant yàlla lii su ma ko sante du ko amal benn njëriñ su ma ko sante du ko wàññi dara nga yëg ko ci sa xol loolu ci cant la bokk waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi bu tax am na benn yonent bu dul Moussa ni yàlla nu ma lay sant ndax ginnaaw sant li nga ma defal ba ma la cee sant su ma la santee cant googu ak cant ci war a sant cant gi ma la sant képp xéwal bi mu ne ko xam gi nga xam ne boo ma santee cant gii lii ma la defal ba nga di ko sant cant képp xéwlu ko mu war xam gi nga xam loolu yëpp doon na cant waaw yëg nga nga yëg ni bi ma la defalee xéwlu nga sant ko cant googu xéwlu ko def doog ci war a santaat yëg-yëg boobu rek mu ne ko loolu doy na ak cant kon loolu mooy li aju ci sant sunu borom ak xeet bi ñu koy def muy des na ko def ci sujjóot des na ko def ci julli des na ko def ci koor des na ko def ci rendi sax ko ngir ngir jublu ci sant kon ñetti xeet sax ci suna su yonte bi sallallahu alayhi wasallam cantum ñaareel bi mooy ñaari wayjur suñu borom moo ko wax waa wasee na insaan bi walde xamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaaluhu fi aami daal ne anuskul yi wali waldeek kon na nga ma sant sant ñaari wayjur la sant ñaari wayjur nag mooy nga am ci ñoom yërmande fonk lool lu leen di bégloo di moytu lool lu leen di naqara ba ci seeni xarit sax nga fonk leen xarit yooyu bu ñuy dund ak bu ñu fi nekkul ba ci bu ñu fi nekkul sax nga dem di toppatoo ji xarit yi ñu amoon loolu ci sant ci jeg topp sa ñaari yële ci sant leen ko am su ko di wala dégg di leen ñaanal yàlla. ginnaaw boo dee ba gis loolu waxul waxul rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii saxiira di leen ñaan yàlla ci sant seen sant nje teraanga yi ñu daan defal ci la lépp lu la teg nga muñ ko te xam ni mën naa am tegoon nga leen lu ko gën a gis ndax doon nga gone ko tuuti booy jooy képp ne ñu jàpp moo ko dal xëy na moo ko nangam nangam nangam nangam coono yooyu ñu daan sonn nga di ko bàyyi xel loolu bokk na ci sant si ñaar ñaar ba tey topp ba tey sant si ñaari waajur ak nangoo jëflante ñu jëflante ba dafa am barke bu rëy bu ci nekk wala fi moom liggéey bi ne bi ma dafa am benn turquien boo xam ne dafa sama waajur wu jigéen dafa baax màggat wéradi ba noppi liggéeyukaay bi may liggéey déplacé mu war a dem Allemagne war faa liggéey ji mu metti ci man loolu ndax soxna si laa ci xalaat te topp naa ba toppal naa ko ay bëgg-bëggam ba moom lu mu bëggul sax rus na rus naa wax ni bëggu ko moom soxna si ba ma ko waxee mu weex ci moom bi ma ko indee Allemagne nee na ni ma koy jëlee di ko guuf di ko teg ci buus bi di génn ak moom di fo di di di ko yóbbu di ñëwaat ak di ko kopp koppal am benn tubaab boo xamante ne ñi ngi sësaloo rek fa ma fa ma nekkoon fa ma ak këram ñi ngi sësaloo rek nii mu di ma gis ba benn bés mu mu mu ma loo xam ne maa ngi lay jégalu ma tax mu ne ma léegi kii xaar lu bari la lay fay lu seet la lay fay nee ma ko dërëm fay. moom loolu loolu mënut nekk nee ma ko sama wajur la fay ko dara daal ne ko léegi te nga dugg bu la neexee nga ñëw ñu toog mu ne ko déet mu ne ko man damaa retraité liggéey ci yow dama yëg ñaata léegi man bi toog di waxtaan xamal ko mbirum diine tax muy def lii mu ne ko dama koy dégg xamante ne dara mu jël ay livre jox gannaaw yàlla livre yooyu mu doon liir ca la doxe ba dugg ci dina islam te kon la ko sabab dëgg-dëgg mooy waa yi dafa def li ko suñu borom digal ci ci ay waajuram ba far kenn dugg te pourtant dugal kenn ci diine islam fexe ba kenn dugg ak noo ko fexe moo gën àdduna ak li ci biir la an yahdiya allahu bika rajulan waahidan xayrun laka min humurin naam te loolu kon kooku ci barke topp ñaari way juróom topp way juróom boobu ci la ko suñu defaree barke kenn kooku tànn ci diine yonte bi daal wax ne ki fekk ñaari way juróom ci kaw suuf na def lu ko ki am ngërëmu ñaari way juróom na def lu ko ne am tàbbi safara waaye ki fexe ba ñàkk seen ngërëm na def lu ko neex du tàbbi àjjana nga xam ne fexe ba gërëm lu lu am solo la waaye fexe ba ba ñu yóbbaale seen naqar dara jël ko ci moo tax yëpp daa mat di bàyyi xel ak it di bàyyi xel yar gi ñu la yar ci diine te dañ lay yar di solo ci yow di la ko ko di la fayal jàngukaay ba ak lépp kat pour yow na du pour ñoom parce que ñoom jeexal nañ ko kon yow mi koy jariñoo ëllëg a gis yow yaa fi des kon ñoom dañ laa taxawu fàggu la ba nga taxaw yow loolu lépp di ko bàyyi xel di ko di bàyyi xel di leen ñaan euh, di muñ lépp lu ne fekk loolu sonn ndax am na ci jamono yoo xam am koo daa indi doomam ci Omar kii def maa dóor mu ne ko doom tur bàyyi subhanallah ba mu tàmbalee yar dafa ne ko déet waaw doom moom dafa benn àq bu ko bàyyi wax ne ko ah am na nag la ci jëkk mooy na tànn tey ñaareel bi mooy bu juddoo na ko tudd turu rafet na ko tànnal turu rafet ñetteel bu matee jàng na ko jàngal ñeenteel bu matee denc na ko dencal ñeenti ak yi daal war na bàyyi bu na ci doom doom ci ne ko def ci benn benn la ci dem tànnul sama ndey fu may toll ñu ma ko defal bi ma juddoo tuddee wu ma tudd rafet ndax birangaan la ma tudd birangaan dégg nga jàngalu ba tax yéen maa ngi Omar nit bàyyi bi yaa ko jëkk tooñ yow tànnoon mu judd tuddee woo ko turu rafet moo tax jàng jàngaloo xamul lu dul topp ci ginnaaw nag aw nag loolu jàng lu waaye ma ne kon nit ki bàyyam jàng protéger ko fonk ko jàngaloo ko defloo def parce que bu mu war a am fasuloo ko kooku amee na bàyyi jukkal boo xam ko ko fay jël lu mat di bàyyi xel loolu ci gàttal mooy di aju ci ñaar sant ñaari waajur léegi nag nit ñi ci seen jën bopp dafa am cadde gortos di yàlla moo ko digal kon nit jullit bu ne dafa war lépp lu la nit defal ci njëkk teraanga nga yëg ko nga yëg ne defal nga sant ko ci loolu day war teef ndax yonent bi sant nit ñi doo sant yàlla noonu ku sant nit ñi doo nii képp koo xam ne lu ñu la defal nga ne ëpp naa loolu lu ñu la jox nga nga xew lu nit mën a def nga jàpp ne def war naa def loolu kooku du sant yàlla nit li war a jàpp diggante woon nit mooy dara warul leen ci moom lu ñu ko defal lu mu toll rek mu sant leen te nag nit ku baax day sant ñu di ko sant waaye nit ko bon day weddi ñu di ko weddi loolu mooy farata am nit ñi nag boo leen sant loolu leen di sant jëkk mooy ki la defal lu baax nga ne ko jërëjëf sant naa bu baax yëg naa ko yëgle ko yëg ko ba mu yëg ba mu ñu yëg nga ko loolu mooy di jëkk wan ko sa mbég loolu loolu mu la defal ndax loolu du la wàññi dara lam lay da lay sax euh, doole ci kanam ñaareel li ngay sant nit ñi mooy teraanga ju leen defal loo man ci delloo ko nga def ndax yonte bi daal wax ne ku leen defal lu baax na ngeen ko fay bu ngeen amul lu ngeen ko fayee na ngeen ko ñaanal ba yëg ni ba jot ni fay ngeen ko na ngeen ko ñaanal jot ni loolu loola fi daan dund di wax ni loxoy kajoor day weesal daa nga gis wala fi daanañ dund aada ju baax te diine sax aada ci diine lay def daanañ def nit da lay yekkal ginnaaw boo jëfandikoo yekk ba noppi nga jënd soble su bari waa ah, nangam nangam ay ndugg defal ko ci bool bi waa yëngu loolu mooy ak sant sant mooy lu leen defal nga seet noo ko ku jéem a delloo ko mënul nag ko ñaan di ko ñaan ñaan ba mu xam ni ba mu xam ba yëg ni ñaan eh, sant sant nga ko ndax nit kuy def lu baax ku new te te yàlla képp tax mu di ko def waxtu bi ah, ah, waxtu nodd dégg kuy def ku ne ngir yàlla bëggul ku ko ci sant bëggul bëggul it ku ko ci gërëm loolu képp kuy def ngir yàlla doo ko bàyyi waaye nag na nga xam ne kay def ngir yàlla boo ko santee ba ngërëm mu ko te dina ne te dina ko neex kon moom sant gi yàlla la ko digal dégg def te dina ko soññ it nag ci la mu doon def mu def ko am na benn woykat bi ñuy wax kul sow ibnu amr dafa wax ne falaw kaana yastaani ani sukri maajidun li izzati mulkin aw uluwi makaani lama amara allahu al ibaada bi sukrihi fa qaala skuru lii ayuha saqala mu ne bu fekkoon ne kenn dana doylu dana doylu ngir ak nguuram toll na noo xam ne jurul kenn di ko sant mbaa mu am ci martaba loo xam ne jurul kenn di ko sant kon yàlla du wax du joxe ndigal naa na ngeen mu sant ndax lépp moo ko ëpp li moo tax benn bu benn woykat bu ñu wax Shawqi daan wax day wax ni ba ci kilee jàngal qum lil muallimi wa fihi tabjila ki lay jàngal na nga jóg taxaw màggal ko daal ni kaadal mu àllimu an yakuna rasula ndax ki lay jàngal daanaka am yonent daanaka xaw naa dem bay dund yonent daal ne a alimta aslafa aw ajalla min alladi yabni wa yunsiu anfusan wa ndax ki nga xamante ne day préparé di tabax ay nit ay xel dara gën ko war ma jox ko jox rek yaayoon ko kon danañ ci xamee ne kon sant gi sant war na suñu diggante yonente yi waaye yonente bi sallallahu alayhi koy sante mooy bari looy julli ci moom bari looy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy cant gi ñu koy ci bëgg sant gi bokk ak it àttana joxe sa bakkan ngir moom loolu ci sant gi la bokk naka noonu sant Serigne Touba lu wér la dañ ko war a sant ndax li ngay jàpp mooy bu dul moom ñoo ko évalué mais mën na mbooloo lu mën a ñotoo di làkk ay france français yi làkk sax baaxut te seen làkk boobu fët nañ ko kon kanu tee fàtte suñu làkk boobu fàtte teenoo fàtte suñu diine ndax amee dañu ko sant war nañ ko amee nañ ko dëgg la mu yëpp la ñuy sant Sëñ Tuubaa dañ ko wax seen làmmiñ fu ñu gis lu bokk ci moom lu ñu mën ci moom dañ ko def cant féetul kaw la yàlla na ci suñu borom sax waaw naka noonu sant gi bokk na ci bëgg mbëggeel gi ko bëgg lu ne mën ko ci moom ko ci ak njaboot bi ci sant la mën ko ci njabootam loolu ci sant ndax yàlla kat li wax ci li mu li li mu waxal yonente mooy qul laa asalukum alayhi min ajrin illa al mawaddata fil lii ma leen jàng soxla mu ci yéen génn pay lu dul ak cofeel ci jegeñaale kon sëñ bi murid yi ñu koy sant ci wax ñu koy sant ci jëf ñu ngi koy sant ci góorgóorlu jàng xest yi lépp rek ñu ngi ciy sant moo tax rek rafet njort gi baax na li ci des lépp nag ay waxtaan la ngir ñu gën a préparé suñu bopp gën a a aar suñu bopp ndax mbir mu mag xew kon ak cant daa war a dox ba ci diggante nit ki ak soxnaam si ñor ci kër gi soxna si bu la tàjjee nag boo lekk nag nekk neex na bari na loolu sax baax da ciy bëgg lool koy sant soxna si nay sant borom kër bi ndax bu ko defee day mujj mu taay waaye léegi gis naa sëy bu tas la ko tas lépp mooy jigéen ñi de lu ñu ko def mu xepp ba mujj mu ne kii mu ko dégg nag ginnaaw lu ma def kon sant dafa am lu muy jariñ ci luy saxal sax ak cofee ci diggante ñaar ñu ànd bul ko xeebal dara yonente bi daan def soxna Aysa dafa xam yonente bi kenn mësu koo taaj ak ñam mu sabote bu ko bëggee léegi dina lekk bu ko bëggut ni baax na baax na waaye sabote añam doo ko def ba ci sa digganteeg sa mbokk sa digganteeg sa baay diggante baay ak doom lu ci ne rek lu ci nit def lu tuut tuut rek na nga ko sant bul jàpp mukk ci sama yaay bopp la bul jàpp mukk ci sama baay bopp jàpp mukk ci sama rakki bopp la bul jàpp mukk ci sama mag bopp lu mu def rek sant ko ndax nit ku ne rek kenn nga ci ëtt kenn nit ku ne kenn boppam la fi représenté du ñaar du ñett te li leen koy xamal mooy la ngay lekk boo lekkoon bay fër sa mbokk nekk yi du ko yëg boo xiifoon bii bëgg a dee sa mbokk nekk yi du yëg ne xiif kon kenn ku ne kenn moo tax lu def na ko sax saal yu dee danaan ko defal lu mu tuuti sant ko sant ko gërëm ko ba kooka day jàpp moom li mu def kenn musu ko fay waaw sant mu doon nag lu bari ay nga neen ngir sant moom daa bokk jàmm yàlla yi nga xam yàlla du ko xaaree ca saasi la lay daal di indil ci meññal bi fii ci àdduna jëkk àlaxira la in shakartum la azidannakum booy sant mu doon la ci saasi ngërëm yàlla ngi ci sant yàlla wax ni wa in tashkuru yardahu lakum ngërëm yàlla ngi ci ak doole na ngi ci mucc ci mbugalum yàlla yi ngi ci maa yaf'alu llaahu bi azabikum in shakartum wa amantum la yàlla wax payu ngi ci ndax su war sa yajzillaahu ash-shaakiriin kon nag ma di ci occasionné di jot li sama cant mboolem gaañ Cheikh Jong muy sëñ Basis Ba ak ñi ciy jàpp yónnati yi ñu yónnati yónne yëpp weer wu dee maa ngi koy gis ci damay occasionné sant gi pour sant leen ci di leen leen lépp maa ngi ciy jot lépp mi ngi agsi daal leen ci sant di leen gërëm bi ñaan suñu borom mu dolli leen ko fulal leen ko làq leen ko yàqee ko waaw loolu occasion sama cant boobu dama yàgg ko loolu kon maa ngi tëje fukki ndénkaan yoo xam ne Ibnul Qayyim daf ko daf ko wax dafa wax ne fukki mbir a ngi yoo xam ne dafa sànk amul njariñ fukki moom laay jeexale waxtaan insha allah ba ci njëkk mooy xam-xam bu jëfewut xam-xam lu mu bari bari boo ko jëfewut li fekk jëfewoo mi ngi mel ne nga doon jàng jàng ba am diplôme dana ko liggéeyoo xam nga danga am ne coon bi dafa sànk léegi boo ci liggéeyoo rek dafa sànk ndax loolu moo tax a jóg kon xam-xam jëf moo ko tax a jóg li fekk jëfewoo ko dafa sànk moo tax sëñ bay jaxte wax ne xam-xam bu deeful defeekul sax bu takku leen xam àll boo bañ a bay xam wàcc ci na ko loo xam-xamu mooy te wëccoo mooy ga la def loo xam-xamu yiw te doo jëf ñàkk xam te ne xam-xam bu ñu dul jëfe mooy benn ñaareel mooy jëf ju ante bu sell jëf ji bu sell ba tey euh, moom naasaañe ñetteel ba mooy xol bu bëgg yàlla nekkut xol boobu dafa sànko ñeenteel ba mooy yaram woo xamante ne dañ koo neenal ba war ba toppul yàlla mu tupp yàlla dafa sànk ko sànk alal it li fekk dépensé nga dépensé ko mu amal la njariñu àdduna mbaa nga def ko ci yoon yàlla mu xaar la fa waaye li fekk mi ngi tëdd amul kon la lu sandiko lépp sor lépp ragal ak yaakaar lu dul ragal gu yaakaar gu sànk la ak yaakaar gu sànk fokk nga yaakaar yàlla fokk nga ragal yàlla naka noonu di liggéeyal koo xam ne liggéey ba du la jariñ fii ci àdduna du la jariñ àllaaxira ndax benn nga di ko liggéeyal mu weeru dem mu fayal nag mu amal la njëriñ di ko liggéeyal yaakaar ci payu bu ñaar yooyu yëpp amul perte noonu waxtu woo xam ne da nga koo ba defoo jëloo am njëriñ waxtu waxtu ko sànq am na ñoo xam ne dañoo fanaan ci YouTube ba bët set YouTube manipulé waaye ñu xoolee lu mu leen jëriñ duñ si amee benn njëriñ duñu benn xam ne des na ci jariñu sax ci internet dëgg la waaye da site benn borom xam-xam sàngam nga jël xam-xam sàngam ba nga xam ne boo fa jógee xam ne jëlee nga ci xam-xam sàngam loolu am na njëriñ waaye bu boo koy jël loolu sànq ko te waxtu dañ dafa seet ba nit daa war ba jamono bu ne koy def ci lu ko amal njëriñu tey mbaa mu koy amal njëriñu léegi mbaa mu débattal lu ko raw yi may daal biir seen média dafa wax ne faral dëgg doyloo xarit lii nga am da ngay doylu doo doyle lii dégg ko ñi am junni tey ak ñi am tànk ku ne ngi tawat te wutu dolli ko te foo seet buur ak yëfam ak ñëngam mu ngi aaju la aaju kenn ñàkk ko te foo fekk kuy wax ni man sant naa dal si gor te ñàkkul lu muy nemmi ko te foo fekk it ak tawatkat du nit te dus gor lu dul sant yow moytu ko muñ ak cant gën lépp loo mënti def na ngay sant kay muñ tawat nag ba ko na ngay sant xéewal di muñ jëpp lor ngirum gaay yàlla gi ñu sopp ko amaanaa nga gis gaay ñuy rekk bég di sooxaale ay lor yu dañuy dox di nëbboo ko nëbb yi taw te koo gis ci ñoom mos cagar doy na ko lu dul doy du doy nag te luy doy di doy murit boobu daal la tubay doy na ko mu ngi leen di nuyu di leen sant di leen sant asalaamaaleykum